gis naa vidéo yi gis naa ni ñëw nga. waaw kontaan nañu. mais daa ñëwaat sax. yaa ngi kontaan nañu dama doon damay bàyyi bu nekk daal mu ñëw kër. kontaan nañu kontaan nañu bëree rek. waaw au nom de toute la famille Seck on est content. te ñun te ñun ñoo bokk la. waaw ku ñu bëri rek. waaw ñu ne soo koy si rek. waaw ah. gars yi maam ko quoi. dëgg la leen kontaan naa daal mu ñëw rek. kontaan naa waaw loolu moom suñu papa. waaw ah, dëgg la benn yoon laa am fa daje moom rek. Ah. dem ko bu rafetlu. dëgg la ñu waxtaan ndax may conseil. dëgg la dëgg la danañ yàlla teg si ma jàmm ak ak jàmm ak salaam dem teg fa jàmm suma suma frère suma xarit nit dox ah. waaw moom moom dafa yàgg. mais dama changé tur dafa yàgg fight à que ma ma ma nekk ci kanam. mais nit nit nit laa ko tuddee. nit la nit nit. est ce que doo bàyyi nit dof bi rek ba nit nit bi xam naa du mën a yëngu quoi.